أعوذ بالله سميع العليم من شر الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد في الأرواح وعلى جسدي في الأجساد وعلى قبري في القبور وعلى آله وصحبه وسلم تسليما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير mbokk jullit yi ñu ngi leen nuyuwaat ci kàddu asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu dellu si waat na di leen nuyu seen mbokk sëñ Sam Nourullah di leen siyaar di leen ñaanul yàlla fajug aajo ak mbir mu jub mucc ak mucc li ak xéewal yu bare bari mboolem koo xam te ne rek yaa ngi siifur suñu waxtaan ci seen bi nga xam moom lañuy wax noonu Laye Sam TV ñu ngi lay nuyu bu baax di leen ndokkeel di leen ñaanal yàlla di nuyu mbokk yëpp ak fi ñu mën di nekk di woote ñenn ñi di sàkku xam-xam ñenn ñi di sàkku ay ñaan ñenn ñi di sàkku euh, wëllëre ñu ngi ziare ñëpp bàyyiwul kenn tey jii nag ñu ngi ñëw ak ci ismu boo xamante ni ismu bu am am solo la ñu gën koo xamee ci tahfaluusin tahfaluusin tahfaluusin sirru bu am am solo la ñu ngi koy bindee taati dero faa ñu ngi koy bindee taati dero alkubeer faa laam waaw si dara su tooy ñu gën koo xamee ci bu dee ñuy jàng arab taahun xeehun faaxun laamun waawun siinun siin bu tooy soo ko doon calcul tey ngay jël taa bi mu jox la neuf xeetu muy xaawun mu jox la cinq faa quatre-vingt laam trente waaw six siin bu tooy bi nekk mille mu jox la mille cent trente mu génne ci benn baat ci alxuraan nekk ci suratu تبت يدا أبي لهب وتب ما أحنان ماله وما كسب سيصلى نارا سعر لهب وأمراته حمالة الحطب في جيدها حبل من مزر باتوا في جيدها بوك جيدي دفلي جوخ من سا من آه مو يوخ سانتريس سانتريس دار في جيدها جوخ فا كترمي يا ديس أجين ترا يا ديس ديل كات 5 alif 1 mu jox la 113 113 nag soo ko defee 10 fois fukki yoon moo lay jox 1130 tolloog tëx faluusi kon tey insha allah secret boobu lañ bëgg a ci euh, euh, asrar muy tëx faluusi ñu gën koo xamee ci ñi koy sikkar suñ koy sikkar dañ ci idaafa dara allahu tax faluusin wala ñu ne allahu xayyun qayyum tax fa dosim boo ci def rek baax na waaye nag bu dee yoonu xaalis bi ci bëgg dëgg na danga koy liggéeyee nii ma wax yow mbokk mi may déglu ginnaaw boo defee astaxfirullah azima lasi laa koy def mille danga koy def euh, mille cent onze astaxfirullah laa ilaha illa wa mooy lim bi gën a baax soo ko mënul nga def ko cent onze wala soixante dix muy kon lim yëpp ba jox istifaar baax na 70 baax na 111 baax na 1111 baax na astaghfirullah azima allazi laa ilaha illa huwa alxayyul nga jéggul yàlla def salaatul fatiha 92 salaatul fatiha 92 wala nga def ko 113 mu toll fii ji daal fatihatul nga jàng ko 113 mu toll fii ji soo noppee nga jël sa kurus liggéey allahu xayyul qayyum tax fa luusin allahu xayyul qayyum tax fa luusin moom na dañ koy liggéey cinq mille cinq cent cinquante cinq cinq mille cinq cent cinquante cinq moom nga wax si kar juróomi junni juróomi téeméer ak juróom fukk ak juróom wala nga liggéey ko mille cent trente mooy addu nafs bi soo taayee nga def ko mille cent trente ba tey baax na mais riyaada bi yaa ngi koy def fukki fan ak ñeent muy muy ñaari simin lan nga koy dikkee yoon bi nga xam moom la ci joxe insha soo ko saxalee riyaada ko noonu dana la la ubbil wàllu wërsëg dana la defal daraja dana la defal tamit fajub aajo moom allahu xayyum xayyumu tax fa fu la neexee tamit nga jël allahu xayyum xayyum tax fa nga calcule ko allahu xayyum xayyum allahu 66 la xayutoo bi cent soixante quatorze mu jox la deux cent quarante nga dolli ci mille cent trente mu jox la mille trois cent soixante dix su ko defee bu la neexee nga jël allahu xayrun xayrun mu tax fa lusin mille trois cent soixante dix nga saxal ko riyaada zikkar ko fukki fan ak ñeent yéene ci yàlla faj sa aajo waaye yéene ci taqarrubu ilallah jege yàlla yéene ci fajub aajo incha allah yàlla dana la defal fajub aajo bu wér-wér ismullaahil azam la boo xamante ni nitu yàlla yi fonkoon nañ ko lool daal ci def ay tasarufaat yu bari ismu la moom boo koy sikar mën na def ay karaama yu baree bari di dem ba li ñanaaw yi wax man nga ko dem ba dégg ko muy baaxime yi mën ngaa dem ba am kasfu bu leer luy ñëw ci yow wala luy xew ci dëkk bi nga ne wala réew yi ñu la koy xibaar moom allahu tax falu sin kon ismu la dafa bëri kasfu waaye ismu la boo xamante ni noonu la bari ay njariñ bëri ay ngëneel bari na ay tasarufaat ay secret yu ci nekk moom allahu taxfaloosin wala taxfaloosin ki nga xamante ni dafay bëgg yàlla ubbi ko tamit bu ko neexee mën na ko bind cent treize su boobaa day bind fii ji dexaa <coughs> mille cent trente fii ji dexaa lay bind mille cent trente bind taxfaloosin baatu taxfaloosin wala wala allahu xëy xëy taxfaloosin mu bind ko cent treize wut xobi siddéem lu tolloog cent treize def ko ci saafara wut parfum bi ñuy bintu sudaa ak kaafin kaaf di ko laal di ci sangu yàlla dana ko ubbil wàllu wërsëg moo xam kuy jaay la wala ku nekk ci eh, ay mbir bëgg mu yëngatu bu baax a baax mbooloo kon yoon bu baax a baax ci allahu tax falu si su ko defee ñu bàyyi ci xel baax incha allah dañ ci ñëwaat ak yeneen secret yoo xam te ñoo gën a yaatu waaye tey dañ doon barkeelu rek di wax mbokk yi namm nañ leen lool mboolem ñi nga xam ne ñu ngi ñuy woo duñ leen jot wala ñu yónnee message ñu leen di jégalu baax xam ni jot gi mooy xaw a jafe waaye bu ñu sañoon bis bu nekk dañuy joxe ay vidéo xam-xam bi di dooleeku tout le temps loolu la ñuy bëgg macha allah waaye nag euh, yàlla baax na ñu ngi leen di ziaraat ñun ñëpp nag di wax ni mbokk mi nga xam yaa ngi may déglu te abonné ko nga abonné ci seen bi di gën di partager vidéo yi. bu ko defee nag euh, bu ko defee lu baax moom boo ko xamee da nga koy jariñ jom doomu aadama yow miy seetaan li ngay dimbalee sa morom mooy partager vidéo yi bu ko defee nit ñi mën ci jariñu wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu yow mi may déglu te abonné ko nga abonné ci seen bi ki amagul numéro bi tamit mu jël ko bu amee lu ko jaaxal mën na ñëwoo moo xam ku bëgg ñaan lu ci boppam la wala listixaar bëgg xam ay mbiram wala xam biddiwam wala xam natiiram tabiyaam wala mu xam ci boppam dara ak ay saraxam bu dee ay ñaan la soxla tamit mën nañ ko ko defal incha allah ci kàttanu yàlla moo xam ki cat jàpp la wala rab wala seytaane wala ki dof wala ay mbir nekk ci moom mu bëgg koo xam suñu woowee ci numéro bi ñuy joxe rek incha allah dañ dañ ko ci jàppale bu baax ci kàttanu yàlla numéro bi nag mooy yoon mi nekk ci euh, bitim réew da ngay def indicatif bi double zéro deux cent vingt et un 77 567 97 19 wala nga jël numéro bi 70 305 81 33 ñaar numéro yi boo ci woo incha allah ñun ngay jot loo soxla ci ñun buñ luñ ci mën ci kattan yàlla ñu jàppale la ci bu dee xii istixaar am na ay façon istixaar yu ñuy def yoo xam te ni ci saa si lañ la koy seetal wax la sa mbir wax la sara yi mu laaj incha allah ci kattan yàlla lépp nag dëppoog alxuraan ak tur yàlla dëppoog alxuraan ci la ñuy liggéey lépp loo xam te lu sell la daal jëm ci nuuraan yi bu sell. ñun ci lañuy liggéey ndax euh, alxuraan mooy lépp te lépp ngi ci alxuraan maa farratnaa fii kitaabi min shay'in yàlla suñu borom nee na alxuraan bàyyi mu dara lépp ngi ci biir su ko defee damay may faral di wax rek wax fawqa kulli zii ilmin aliim xam-xam dafa yaatu ku ci ne ak ni la yàlla duyeele ku ci ne ak ni nga ku ci ne ak ni la yàlla baaxee loo xamul lu nekk jàppal yaa ko xamul mais na keneen ku ko xam suñu borom noonu la tëddale noonu la bindee àddina kii def fi nga yem fi la keneen tàmbalee dem noonu la yàlla bindee àddina su ko defee ñu rafetal xol yi te yaatal yéenante jàmm xam ni xam-xam ci loxo yàlla la nekk li ñuy wax mbaax ci loxo yàlla la nekk yàlla mooy seet ku ko neex mu jox ko qul inna al fadla bi yadillah yuxtihi man yasaahu wala sulfa lillasin sëñ ci baax ci ko jinaan fa inna fadla fadlallahi laysa muxtasar yuxtihi man yasaahu min al basar nee na ngëneel yàlla yi tuutiwul nekkul lu tuuti ba nga mën koo tënk ci barab ni ñooñu rek ñoo ko am yàlla mooy seet ku ko neex mu jël ngëneelam ak xam-xamam ak wilaayatoom daa ko koy dénk kon nañ yaatal lépp xam ne suñ borom moo jaboote ñëpp wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala kuy ñaan ñaanal yàlla looy wut wut ko ci gën a gaaw lépp looy sàkku sàkku ko ci alxuraan sàkku ci turu yàlla moo gën lépp looy sàkku tamit ci leneen loo xam du turu yàlla moo xam yëfi seytaane la wala jinne yu bon soo ko amee tamit am nga man naa mën naa mën nga koo am de waaye boobu la muy mujjee du baax kon looy wut wut ko ci tur yàlla waaye looy wut wut ko ci alquran looy wut wut ko ci salaatu ala ala nabi looy wut jaar ko ci secret ismulaay asami walilaay asmaul husna fad'uhu biha kon ñu ngi ci soññee ñëpp daal lépp lay wut rek alquran moo ci gën a gaaw tur yàlla ci gën a gaaw ismulaay asami ci gën a gaaw salaatul ala nabi ci gën a gaaw kon looy wut wut ko ci anam bu teey te bañ a yàkkamti xam ne yam saa salama nee na adxu wa antum muwakiluuna bil ijaaba wa an allaha la yastajibu duhaahu min qalbin qaafilin lah booy ñaan yàlla bul yàkkamti waaw booy ñaan yàlla bul yàkkamti bul yuqat boo ñaanee rek jàppal ne yàlla nangu na ñaan ci waaw yàlla nag du nangu ñaan boo xamante ni ki koy ñaan dafa nekk koo xam day foo ci xolam wala muy yàkkamti wala muy yuqat kon ñu ngi ñëpp wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu